7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

38 et ak deux bulletins nuls ah bi ak bii ah. Mm-hmm. Alioune Fall 38. donc Alioune Fall 38 Pam Ndiaye 7 donc Alioune Fall est déclaré président. bon di jiital ci niveau bi suñu président bi wax dëgg yàlla gis nañ taxawaay bi rafet na trop te. jataay bi lépp jataay bi lépp loo ci mën pour mu continuer te dérouler ci ni mu gënee rek bon euh, yaa ngi ci ñu ngi lay sant di la gërëm bu baax a baax di gërëm aussi ñi teew fii ñëpp muy góor jigéen mag ak ndaw ñu ngi leen di ñu ngi leen di sant bu baax a baax di gërëm aussi président Ins Fall nekku fi ñu ngi koy sant moom di ko gërëm di ko di koy di ko di ko yóbbante di ko yóbbante nuyoo ba pare di aussi di tàllal suñu loxo ci moom ak groupe bi fi nekkoon yëpp te nekkuñu fi pour ñu ñëw jàppale groupe bu bees bi euh, ngir euh, ngir dam ngir Damel mën a dem ci kanam ah. euh, bi ci des mooy groupe bi nga xamante ni moom moo fi nekk aussi ñu ngi sant ñëpp di ñaanal ñëpp ba pare en plus ñu ñuy wax aussi am na sax ku ko wax jibi bon bokkoon na ci suñ luñ buggoon wax mooy que ni poste yi nga xamante ni moom lañ jël ñu góorgóorlu ba nga xamante ni ku ci nekk li la warloo ak euh, damel nga def ci sa kéemtalaay kàttan parce que toog rek jël pa bu bu post jotee nga jël bu doxal jotee lu ñu la gis loolu tamit wax dëgg yàlla day day day day day nasaxal te ñun tamit ñu ngi tàllal suñu loxo ñëpp amuñu ku ñuy tànn amuñu ku ñu amuñu xaj amuñu suñu xarit amul keneen ak keneen ak keneen. ñi ngi tàllal loxo pour Tivaouane bi yëpp ku ci nekk lépp loo mën pour Damel ñu indi ko boole ko ñun ñëpp doon ay président ñun dañ man président mais man xam naa ni moom doxew ma yu bëri doxew ma ci li ma gëm mooy liggéey ànd liggéey ci transparence surtout li ñuy def yëfu mbooloo du yëfu kenn nit ñu te ko ci transparence liggéey bu baax ñi nga xamante ne si ni jël nañ poste dem euh, élection ñu choisir leen am nañ yan yan bi ñu am mooy ñi nga xamante ni voté nañ leen am nañ lu ñu war a rend compte ñooñu ñi nga xam ne tamit gisuñu woon maanaam yow choisiruñ la ñooñu tamit am nga loo leen war a rend compte am na si ñoo xamante ni ci bureau bii passé lañ nekkoon ñu liggéey tey ñu renouveler leen ñooñu aussi am nañ yan bu baax a baax a baax am na ñoo xamante ni nag moom bu ñu yëkkatee seen loxo kenn yëkkatiwul ñooñu tamit kenn ëpp leen yan. ñu xam ne daal dameel bii nii du dameelu kii ak kee ak kee pour man dameelu Tivaouane bii yëpp la ñun ñëpp nañ nekk ay président ñun ñëpp te gis naa ci fi loo xamante ni aussi man rafetlu ma ko quoi te luy yàq la te tey dameel bii nii fi mu toll nii ku ko bëgg booy wax ci dameel am nga nooy war a waxee man mii bi ñu fi nekkee am na lu ma fi naqari loo xamante ni war naa ko mën a pour sama compte personnel man mais dama koy jël teg na le ndax peut-être su ma ko waxee mën naa yàq li ñu fi dajale muy intérêt Damel te Damel bi instant bii nii am na ku nekk xam na ni bu doon malaat ma ne mi ngi urgence bureau bii fi jóge nag seen quatre ans yi am na lu ñu def def nañ benn pas ñun pour ñu def plus nañ def deux pas ci mandat bu quatre bi loolu mën na nekk te Tivaouane war naa am na lu ëpp loolu kon loolu laa bëggoon ñu góor góorgóorlu ci bu baax a baax a baax a baax te tamit euh, nu mu tuddu Euh, am nañ match tey xam naa discours bi moom du gudd parce que am nañ mas tey instant bi presque 13 heures jot na te 17 heures la ñu ci bëri fii comme ni ko goo waxee ñooy demaat foofu noonu pour am yu ñu gérer ak yooyu kon dañ koy bëgg rek gàttal ko yemale ko fii ba xam naa ni bureau mu bees bi dinañ jéem a xool lu ñuy jéem a dajawaat ci délai yu gën a gàtt pour yaatal lu bëree bëree bëree bëree bëri defaale point de presque bu mag incha allah.